su ko defee ñu ànd ak kilifa yi dem toog ci ginnaaw sees yaa ngi ci ginnaaw. noo ngi koy ñaan noo ngi koy ñaan ñëpp ci ànd ak kilifa rek. Yàlla الخيال أمربي فكوني مرتبي فكتبي سلمها دام أبي ورزقنا سيغبا مسلالا باب الهدى ماي مدام هنبا لجدا ماي ردها دام أبي ورزقنا سيغبا وسلما على اليمين فكر مدير الخنا teel ci bis bu màgg bii nga xam ne nii moo di bisu Cheikhul Khadim bi di am mbégte lool ak ay bopp sama mbokk taalibe yi seen Abibu ngir jëm leen a indil ñoo ngi naan ku ànd ak kilifa nga bàyyi kilifa gën ci yàgg ci ginnaaw am nañu koy toppatoo. Thank you. النبي صل وسلم سرمدا سرمدا سرمدا على البيضاء مدادا سرمدا لجميل النسائر وبعد الدائرة يا مال الكبائر هذا سيدي يا ملل يا عمي ليه على المزمل صل بكلكم عليها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 العالمين سبحان وسلم على الدليل في نبي ذاك الويد والمجيد وسلم وسلم يا غدير وسلم في الحال طيب رسول رابع الأولى وكفى كي نبي جاك رسول رابع وكفى كي نبي جاك رسول رابع وكفى وسلم النبي صل وسلم سرمدا سرمدا سرمدا سرمدا سرمدا سرمدا منكم إلا النصائر ولا يتساوى سيدي يا ملدي يا عمي لي أنا ألم وسلم وسلم وسلم السلام bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu wasallam ala alhadi amin sayidina mohammadin ilmakin wa ala alihi wa sahabatihi ridwani wa tamkin bokki julit yi bokki réew mi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ngi sant yàlla di julli ci sayidina mohammadin alayhi salaatu wasalaam dañaan yàlla subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq ndax mbir mi ñu ko tàmbali woon altine ren bàyyi ko woon soowu ca kër gu mag nga xamante ne mooy triangle sud ànd ak technicien ànd ak ay chauffeur ànd ay journaliste ànd ak ay prise de son ñoom ñëpp ñu tàbbi ci biir ñu ñëw ngir dundal li nga xamante ni bii mooy màggal Touba gi ci auditeurs yi nga xamante ni bii ñoo taal moom li nga xamante ni mooy rajo Sénégal ci barab yu fasantikoo yi la cay wàllu journal ci wàllu tubaab ak ci wàllu wolof ak ci wàllu mën a doon matale ko egsi nañ nag fi nga xamante ni bii fi la ñu war a jeexal li nga xamante ni mooy màggalu 2019 muy cérémonie officielle bi nga xamante ni bii ci wàllu aada la tënku waaye lu lislaam gërëm la ndax bu fekkente ni bii dañoo dëgmal màggal gi ñetti weer bala ñu ko dëgmal ñu def ay CD def ay CRD def ay CDD loolu bis bi mooy yi nga xamante ni moom moom moom autorité yi doon bàyyi xel ngir Sénégal yi nga xam ñoo fi ñëw ñi nga xam dañoo yittewoo ndox ñu am ko. courant bi nga xamante ni bii warta ni kamaj ñu fexe ba tut ay jumtukaay yoo xamante ni mooy tax courant bi du fay ñi nga xam ne ni seen yaram day sutante ministère de la santé dugal loxoom Ageroute service yi ministères yi ñoom ñëpp nu dajaloo ci turu président de la République jël lépp nag texo ci loxol ministre de l'intérieur mu déglu ci ñi nga xam ñooy commission bi nga xam ne Cheikh Abdou Bachir moom Cheikh Abdou Khadir mooy nga xam moo ko jiite loolu lépp nag macha allah rabbul alamin yàlla def na ci tawfiq ba tey démb la nu màggal tey am na ñoo xamante ne ñi ngi ne ci yoonu ñibbi yàlla na yàlla leer seen yoon ñi nga xamante ne ñibbi nañu bay dallu tamit yàlla leen yàlla may yoolu màggal ndax nag bis benn la ci àdduna bis boo xamante boo ñëwee ci réew mi ni cëpp ci capital bi nga naan waa Sénégal fu nu nekk ñun la ngi dem dëkk bu jëm Touba lu ñu fay defi ñu ne ab jaamub yàlla boo xamante bi dafa yëgoon ni li ko yàlla defal ci xéwal làmmiñu boppam lott na ci mu woo leen ngir mu ba bisub sant yàlla subhanahu wa taala boo xam Sénégal adduna yëpp yëpp dañ daje fii fii la ko yàlla def fukki fan ak juróom-ñetti weer safar moo tax màggal gi lay yokk saa su ne ay waxam du dañ yàlla moo wax la cakatum la asi dana ko ku sant rek ma dolli Serigne Touba nag dafa sant yéeg ni cantuk boppam sax doy moo ne nan ko sant lee kon loolu tax xéwal yi di saawaan baawaan saa su ne kon noo ngi ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mi nga ak ki nga xam mooy Oban Ngingue mi nga xam moo nekk ci RTS eh, Mbacké Touba Mbacké FM ak ki nga xam mooy Ousmane Mbengue Mouhamed Pascal fay ak eh, Madické Fall eh, Amadou Diouf tam nag moom nekkul technicien rek waaye dafa nekk ci wàllu coordination bi na dafa mel ni excellent fi nga xamante ni bi fii dañuy dalal autorité étatique yi nga xamante ni nag Arona autorité nag liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéey daf ko war a liggéey waaye nit bu defee lu baax ba noppi donte tamit daf ci am droit donte da ko war nga ko di jaajëf kon cérémonie officielle yi boo ko dee nekk mooy baatu jaajëfal ñi nga xamante ne bii ñoom la yàlla dénk wàllu àdduna ñu taxaw ci askan wi ba lépp loo xamante ni bii day tax seen du nekk ci Touba wala faru tuuba mën a am tawfiix yàlla nag mooy matal alkamalullahi yàlla rek mooy matal waaye comme que ñu gën seen kéemtalaay kattan tey Cheikh Mamadou Mountakha di leen dalal ngir ñu weccante ay kàddu yoo xamante ne du génn kàddu jëf kon suñu aaroon ñu bàyyi la nga ubbi bi rek bu ko defee ñu seq liggéey bi incha allah xam nga ñu tedd ñi ñoom jërëjëf rek la ñuy wax naam nag màggal gi fawun wax Ali ji ni am na ay jafe dëgg engagement c'est vrai gouvernement bi jëloon na ko waaye ndox mi ku ne xam na nii askanu Touba sonn nan lool ci màggalu ren gi ñëw ci daluwaay yu ci mel ni ay euh, Touba Madiana yu ci mel ni ay ndaamaatu quartier yu bëri daanaka seen i gan teel na noo takk seen i bagage ndax ndox moo fa ñàkk defe naa ni président Macky Sall nangu na lool ndax euh, lii di conseil des ministre bu àllarba jii rek waxaat na wàlla mbirum ndox mi ginnaaw bi mu ñëwee Touba ni faw audité réseau bi ndax imam Touba ñàkkul ndox mu muy pompe waaye perte yi noo bari SDE bi mu fi ñëwee di jàpp na ni am na téeméeri perte yoo xam ne dañ koy gis ci réseau bi xam nga perte mooy ndox moo day siit euh, day dem ci biir suuf si maanaam du jëriñ doomu yi maanaam Touba bu doon pompé téeméeri litre juróom fukk yi mooy yegg ci kër yi kon juróom fukk yi ci suuf si lay delluwaat kon loolu président nangu na faw nag nu audité ko xool dëgg-dëgg lan mooy mbir mi kon jàpp naa ni c'est vrai góorgóorlu nan waaye dafa am loxo xam dama ne dina la bett ñàkkul nag déwén incha allah bu gars yi ñëweetee di mu nuy màggal seeti yëf yi gën a muxtaare waaye ren na nu jàpp ni yëf yi xaw na am ay jafe-jafe bu dee taw bi ak mbedd yu taay yi loole tam mbirum yàlla sun borom la waaye assainissement bi incha allah gars yi nu ngi ci dugal seen loxo waa Touba ca ne nee na dinañu ci liggéey xam ne Serigne Mountakha tam lépp loo xam ne day taaral dëkk bi di Touba incha allah saa su dina ca tek ay tànkam xam naa ni du ñàkk liggéey yi bu subuñ université bu noppee wala parallèlement dina wax ci assainissement bi wax ci yenn jafe-jafe yu nuy nemmeeku ci dëkk bi di Touba waaye jàpp naa ni jataay bi jotaay yu ngërëm lay doon ndax xam nga ne euh, Serigne moom daanaka toujours day am euh, day wuteeg man maanaam du rek lu mu xalaat ci xelam wax ko dafa am euh, kiiraayu kersa bu jox seen diggante ak kilifa yi xëy na waxtaan waxtaanu biiru nekk lay doon du ñàkk suñu noppee dinañ waxtaan ak président waxtaan ak ministre bi ni kat naam góorgóorlu ngeen waaye bëgg nañ déwén nu àndandoo joxante loxo di liggéey yenn saa yenn jafe-jafe yi rawatina ci wàllu mbirum ndox waaye jàpp nañ waxtaan wu am solo noonu fas yéenee fekk fii ci Touba saa su ne nag lañ koy amal waaye xam ngeen tam mooy jamono jamono soññee la nga xam ne sëñ saa su xëy na sëñ Bassirou la koy eh, lay jox kàddu gi mu soññee ci wàllu koppar yi doon joxe taalibe murid li ñu koy ràññee moo di jëf jël maanaam di jël sa alal di joxe université bi fukki taax la ak juróom ma Omar Gningue moo na ko nataaloon fan yii faaw kon ay dolliwaat ay koppar faaw itam taalibe yi gën a joxe waat ay koppar loolu kon bokk na ci taarixu muy waaye itam dëkk bi lu koy sellal ci assainissement faaw taalibe yi dugal ci seen loxo wala mbirum ndox mi faaw taalibe yi dugal seen loxo du ñàkk discours yooyu la taalibe yi di xaar ndax taalibe yi li ñuy xaar toujours mooy ndigal te jàpp naa ne cérémonie bi wala nu fee jógee tey du ñàkk beneen ndigal dina ñëwaat lépp rek gën a feddali laxa saay ndax masal ku ci naan des na ab liggéey waaye nag daanaka noppi na ñaar fukki milliards université bi fanweeri milliards ak juróom-ñaar ñu bari ba mu ko tuddee at moom ko tuddee dañ ni loolu mënul nekk waaye gis nga visite de chantier bi nga xam ne nii sëñ Omar ñi nga defoon na ko ak porte parole lam nu xamal moo di ni daanaka cinquante pour cent travaux yi lee mu noppi ba njàng mi door kon jàpp naa ni imam waxtaan bi ñëpp koy taataan adduna bi yëpp du ñàkk kon dina dina euh, njëriñ lu bëree bëri dina bàyyee ko ci waxtaan wi kon Omar ñi nga Euh, nu ngi toog ak jox sëñ Ousmane xam naa Omar day doog a yegg coono beeg yooyu ak xew xew li nga xam ne xewlu na ko Mbacké mu mel ni euh, sëñ Ousmane jataay bi de nu ngi ciy xaar lu bëree bëri ku tedd kii ay kàddu ma toujours dañ koy teewlu rek ndax njëriñ la ñuy euh, la lay def ñoom dëgg la euh, wax ngeen wax yëpp daanaka euh, li ci solo génn na muy ndaje mi nga xam ne diggante sëñ bi la ak ñi nga xam ne ñoo nga ko nguur gi wax nga ko sànq ni dañoo déparé ci ay mbir yoo xam ni ay soxla la yoo xam ni màggalu Tuubaa a koy soxla ndax wax na ko sànq fuy mbooloo di daje devoir la ci état ngir nag yenn soxla yi mu taxaw ci Euh, soxla yu mel ne kaaraange kenn mënu ko wattu lu dul ngu euh, lu dul euh, état moo mën di sàmm li nga xam ne mooy kaaraange nit ñi ak seen i am-am loolu lu leen war la moo tax duñu mës di jóg ci di ko taxaw te loolu day gën di nekk soxla bu tar fii ci Touba ndax at mu jot mbooloo gën di yokku macha allah ndax sëñ Touba moo woote sëñ Touba moo woote ngir ñu sant la ko borom te loolu xam nga ni kenn ci àdduna bu ko wuute moo tax chaque année muy gën di mbooloo mi di gën di bëri chaque année mbooloo mi di gën di bëri yeneen soxla di gën di feeñ ndox mi naam am na ay at defoon ay jéego gënoon naa métti mën nañ ko wax nag gënoon naa métti ndoxu Touba gënoon naa métti xëy na am na ay efforts yu bari yoo xam ni nguur yi dañ koy def nguur gu fi jaar def nga sa kéemtalaay kan foog ni sax euh, jeexal nga mbir mi waaye soxla taxawaay soxla ndox moo dul dañ ci Touba ndax mbooloo mooy gën di bari ndax euh, dèjà ñi dëkk biir Touba rek xëy na ñoom dañuy soxla ndox mu waaye nag bu fekkee boo jëlee kër gu nekk lu toll ci fukki nit wala lu toll ci ñaar fukki nit wala lu toll ci fanweeri nit dañ fay dal boobu soxla waxtaani consacration am dajale doon diggante kilifa yi gàngu nguur gi ak la ñu jëloon ci ay engagement sasoo woon ci liggéey bi ak la ñu amoon ci yéene ndox mi sori xool lan lañ bay ci tool bi ñaari soor yi rek nga xamante ni bi daanaka bi koy bi koy def Cheikh Moussa moo koy yokk ci juróom amee lu ca des itam nee na bi koy gas technicien yi amoon na problème ëllëg waaye loolu wax na ma ni sax maanaam ñu jiit loolu mooy màggal Touba mooy jumaa Touba yi moo doon ministre architecture bi nga xamante ni moo ko defaroon dafa ñëw Serigne Fall daal la ko jumaa ji ndox mi la koy njëlbeenu amoon na ay seete yi doon comité nga xamante ne moom de développement mu doon itam ay CDD comité départemental de développement ci euh, CRD bi xam ne gouverneur da ko doon jiite ak CRD boo xam ne ni itam euh, moom ci boppam moo ciy fekkoog Serigne Bassirou mu Serigne Abdou Khadre mu am ci Dakar amaat fii itam ci Touba ñu jubbanteeg joyanti ba ñu yeggee nag ci jëppaandaw ja loolu baaxoo di def ay ak suñu borom di taw fekk ñu ko fi teewee loolu mooy doon li nga xam ne nii tey dina bokk ci waaye itam xam nga ne waxtaan woo xam ne nii itam ndax doo mu jot dañuy daje day laaj nag askan wi am suñu force la am lu ñu def tax nag ñu mën a saytu jumtukaay yooyu tax ndox moomu xëy na ñu mën a nekk lu mu leen junj ak yoon wu mu leen teg ak ndigal lu jox ak lu mu leen moytu loolu problème am na jamono bañ ko fa njëkkee yëkkati yaakaar naa sëñ Saliou ci encore dans nos oreilles waaw am yërmande ci sëriñ bi dëgg la dëgg la dëgg la ndax Touba bari na ko ci wax bi fasantikoo waxal loo xam ci lay wax ak na ñu bari yoo xam ne ci àll bi dugal seen jëm dëgg la dëgg la waaye la boobu tamit di jàmbaar wax dëgg yàlla euh, man de ci sama gis-gis yoo xamante ni bi kenn na euh, du fay ndox waaye génne at yi boo xam ne day doon barkeelu buy tax xëy na jafe-jafe ndox muy sax ndax jafe-jafe moom ñoo koy dund tey jii bu ndox manqué ñoom ñuy yuux tey jii bu ndox manqué moo loolu moo xam si ñebe mu si sax loolu bu ñu ko dajalee da ngay gis ni kon ndox mi bu ci gaa rek mu sotti def naa ci reportage ñoom a xam nga ma xam ña nekk feneen yi yëpp nag rawatina ñu def ci mooy ndox ndoxu inondation bi loolu moom loolu moom màggal gi moom système bi nga xam waame la waaw taw mooy taw boo xam day daj fépp fépp ay tooy ci réseau loolu yëpp lu ñu war a indi ay saafara loolu yëpp pour wax ni rek defe naa communauté mouride bi dañoo gën a war a laxasaay dañoo war a gën a laxasaay ndax lii cëru mbu la naam waaye nag dañoo nekk jamono boo xam ni ñay def l'intégration ñëw ci barab bi loolu ñu jóge Sénégal am am solo boo ko jëlee ci wàllu ndox jël ko ci wàllu bi jël ko ni ko rek ndaje la ngir waxtaanee xam ni message ndax màggal bés la boo xam ni toujours buñ fa jógee ñu wër Sénégal ko teg ci kanamu kon ñu gis noonu présidence bi ñu xam ngir waajalaat ngir laxasaay waat ngir mën a gën a dox ci yoon loolu yëpp ay ndigal la ak ay message yoo xam ne du ñàkk ni tey jii daan ko dégg ndax sëñ li wër jumaa wax dëgg yàlla moom njabootu Sëriñ Tuubaa yi ñoo ko wër dëgg dëgg dëgg dëgg mooy recommandation li Sëriñ Tuubaa wax li cheikh bi wax ci ay ndigal ni murit nii la war a jëfee nii la bëgg l'islam bi ñu doxale ko sëñ Muntaxa xam ngeen ni kàddoom toujours ci loolu lay jëm moo tax kii aussi tey jii danañu déggaat ko kàddu sëñ Muntaxa dañu déggaat ay message dañu déggaat ay recommandation lépp jëm ci rek luy tax murit bi gën a doon murit di nangu digle yi di ko jëfee tey nekk ci yoon di ci dox ba pare it lislaam bi nga xam ne moom la bokk te sëñ bi mu ñoroon ko lool ba tax tey këru diine yëpp gis seen bopp ci Tuuba loolu it lu ñu war gën di gën di yaatal la ndax bi dafa nekk lu universel loo xam euh, la ñu bokk eh, te diine ji la nekk avant tout ndax sëñ Tuubaa dafa ne moom eh, serviteur yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kuy def loolu xam nga ni kon eh, ñëpp nga boole ñëpp nga ni rek ñoo bokk lii nañ ci dox nañ def ba loolu gën a mën a jëm kanam defe message bi lu wees loolu sëñ jërëjëf mooy mooy jëwriñu Touba Omar noo ngi lay ñaanal suñu borom dëgg Omar yi fi jot a xew ci wàllu CD ak CDD ak ba ci CRD ba ci li nga xam mooy seen hôtel bi daanaka lu ci bari fekke nga kon dafa mel ni ko sëriñ tey ñoom la sëriñ bi daal jaajëfal ndax sëriñ Touba bi muy màggal bi mu ci joxe digal bu Moussa la jógee ci këram day daal di dox tuuti rek ci mennum xar agsi ci kër bi mu ñibbisee Touba gi si Mourou Moussa wéeru ko kër mag moom waaye si Mourou Moussa bi mu ñibbisee ci këram tedd gi nga xamante ni moom it final ji Serigne Fallou dafa toog 45 mooy ci waaw ñii nee neen 46 waaye am na ko ma wax ne ma li wéetu moom 47 daal case mooy case bi Fallou tàmbali doon màggal fii ci ci Touba te la ma leen waxoon mooy dafa am message de l'intérieur toog bëgg ñëpp fekk ma Touba ñëpp ñoo leen màggal gaay muy wax ak ñoom ñu xam ne maam ñu ko jamono yooyu président Senghor daan na ñëw def délégation ko jërëjëf di xaar sëriñ bu demee nag ba nga xam ne dafa jëlee ko kon nga gis ni askan wi mu taxaa defal ko dara gu rëy man aaroon kenn ma gisee bool yi man war naa bokk délégation président waaye nag ma ci bokkoon sax ba mootu fii mu añ damay jël damay damay jël engrais damay jël engrais laaj ndigal ndax am na mën naa am ñetti bool ñetti bool yu mu yóbbu bu ko defee wàññi barkeel parce que la yéree waaye keroog keroog loolu loolu dal na xel waaw loolu suñu mu taxaa mi ngi doon président maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm te maa ngi lay ñaanal yàlla ndax nit bu ko yàlla jiitalee yàlla moo koy doon ak cant waaye nag toog bi nga xam ne moom la sëñ toog fii nit bu ñu demee yàlla dañ nopp yàlla ni ñu doxee waaye doon président daanaka seen wuyu sax mooy nangu yilife rek am solo ci jàngale bi ndax moom daa mas a nangu ku ko yilif kan ma la wax yaa nga defal la boppam ba jeex tàkk itam wane yoon bi ñuy jàpp ñi moom dañoo jàngalaat ak toppin dañoo jàngalaat ak toppin dañoo am na ñoo xam ne jàngal ay laxasaay ci école yu chien li nga xam ne nii moo doon baat bu mu yees mais seen xel nekku ci président parce que yàlla orienté ko def seen xel parce que namu leen ko may ministre l'intérieur Aliou Ngoye yegsi na ak ministre yi ma àndal di délégation bu am solo ñu may leen ñu yegsi fii ñu may leen toog ku ànd ak kilifa rek nga kilifa doon mu yegg si am na ñu tax mel président sant ko gërëm ko mu am loo xam ne sëriñ bi mën na ko taalibe yi mën nañ ko mais dafa am loo xam ne Arouna Gaye loolu état la taalibe yi mën nañ dajale ay milliards mais dafa am côté technique boo xamante ni bii état bi ci boppam mooy woo ay ingénieur woo ay expert loo jàng jàng jàng daara mën ngaa xay ma am ba am entreprise mais entreprise ñi muy doxee da ngay wut benn benn comptable wut benn benn chef chef de service wut benn DRH benn nangam sangam léegi nag jataay yu tey bii jataay la boo xamante ni bii ñoom lanu defoon leneen yàlla di sant tey si Mountakha li nga jot a gis diggante boobu léegi dañu bëgg nga déglu ko rek balaa cérémonie bi di am. waaw mbokk mi délégation yi a tardé tuuti ndax diggante Mbàkke ak Touba mu dugg si dafa xaw a fa lay tàmbalee waaw maam ma ki nga xam ne chauffeur yi gën a bàyyi xel ci ni ñuy dawee dëgg la Mama Moussa Niang suñu xaali kon Mama ba léegi ñu foofu en repérage dégg nga kon ba léegi ñu ngi lim délégation yi nga xamante ni bii ñoo ñëw euh, ci màggal gi ñu leen di lim leen lim ngir maanaam gën a mën a wan rek ni woote bi ni ko taalibe yi woote bi ni ko waa àdduna si wuy see Sëriñ Tuubaa ndax kat euh, nekk na am nga ko doon waxee léegi rek doon na loo xamante ni bii tey euh, euh, am na solo lool ndax sëñ bi moom nga xamante ni bii wax na ni nañ ko ñëw santale suñu borom amul kenn koo xamante ni bii yaa wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te ñëwoo teew ñu kon ba léegi mama bisimilah mama bisimilah mama maanaam li nga xamante ne mooy comité d'organisation bi parce que li ngeen wax ci wàllu ndox ak électricité ak assainissement lool état la war donc jotaay bu ne da ngay gis dañuy fësal ay seen seen i yéene maanaam ngir accompagner comité bi ba jafe-jafe bañ a am mais nag Touba ni mu bindoo dafa dafa dafa dafa dafa yaatu man problème bi sax du ma ci wax mais boo xoolee wàllu assainissement bi rek ngay xool li ñuy wax ñu ne loolu ci biir corniche Touba bi rek maanaam boo génnee corniche bi dafa assainissement def ay saabu wala yeneen maanaam a koy gis ay dégg ay ah. dégg yoo xamante ne actuellement dañu tax donc foofu say am am am solo la waaw oto ma jureen dama ne mais waa ji fii moom xanaa bu tawee mu fekk ndox mi ndox mi ngees loolu biir Touba la nag waaw loolu biir foofu amul benn maanaam réseau assainissement ak saam googu nga wax noonu voilà donc loolu ay chantier yoo xamante ne foo ñu jóg ci parce que constat bi ñu def mooy da ngay waaye léegi am na barab yoo xamante ñi di biir Touba boo fa taxee doo seen jumaa ji doo seen jumaa ji dëkk bee màggee noonu te ci gën a yéeme nag nee nañ maanaam at yi di ñëw magal bi ci biir nawet bi lay lay nekk xam nga ren sax gis nañ ni màggal gi vers hivernage bi la mais comme année prochaine ak yeneen yi ci biir nawet bi lay nekk donc chantier boobu dafa nekk loo xamante ne maanaam il faut ñu jóg ci du nekk lu yomb nag maanaam parce que mën ngaa jël sa oto fii rek daw génn ko ne mais da ngay fàtte sax yaa ngi. ambassadeur Algérie kenn xamul fu mu yem ay population ñoo fa dëkk ñoom soxla nañ assainissement li jëm ci wàllu maanaam santé également nekk naa fii ak maire maire mi ngi jéem def li mu mën état bi également mi ngi def li mu mën ndax keroog ministre santé bi mu ñëwee xamle woon na nga xamante ne mooy grand hôpital bi nga xamante ne état bi mooy tabax nekk daaru mufti macha allah tout comme bâtiment bi xamante ne état bi six virgule cinq milliards de francs CFA lay jar ñoo koy def ci hôpital mat la bu hôpital boobu nag état bi murid ñoo ko tabax wante état bi maanaam dugal na ci loxo bu baax ndax boo ko at yi passé amoon na coow bu bëri ñu naan foofu am na benn batiment boo xam ne dafay daanu syndicat yi ne dañ koy toj ñi ne mënu toj jëfal nañ ko mais loolu yëpp am na solution état bi génne na ko six virgule cinq milliards de francs CFA maanaam tabax ko te boo xoolee maanaam hôpital bi ñu koy tabax valeur bu trois milliards la woon donc est ci liggéey boo xamante ne Touba ci kanam laa nekk ak ñoom ñoom aussi am liggéey bu am solo ñoom fii tabax ay santé également daal ci santé boobu mais loolu dafay doy mel ni ba léegi daal doyul da ngay dugg ci ay quartier yoo xamante ne maanaam askan wi bu ñu soxla Touba maanaam wàllu santé dañuy daw lu sori sori sori pour mu ci am ñu jóg waaw loolu man dama ci constaté avant ñu déménager ci route Mbacke bi noonu bu ñu taxaw si da ngay jékki-jékki gis benn charrette wala benn oto ñu yëpp ci ay bagage nga xam ne kii day toxu si ñu dugg si donc te loolu man def naa ci constat parce que xam naa wóoruma dëkk bi mais fi ma dem bëri na maanaam da ngay wër dafa yaatu donc wàllu assainissement boobu ak wàllu santé bi poste de santé yi yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni war nañ koo gën a mën a askan bi nga xamante ni dëkk hors corniche sëñ Arona kon dafa mel ni man ñi nga li nga xamante mën a wax waaye Arona dafa mel ni nit ñi li tax muy bàyyi ko fu ne di dugg si di dugg si Touba gi Touba di dëkk tawféex ndax xam nga Touba moom xamul 150 mètres carrés ñoom bu gàttee ba gàtt 300 mètres carrés lan lay dagal dagal la wàññi màggal ba pare dagal la foo xam fa ngay yeew nag yi bu dee soowu mu xamul loolu kon loolu doon loo xam du yéeme la dafa mel ne nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha euh, mi ngi egg si fi nga xamante ni bii mooy résidence Cheikh na Ahmadoul Khadim waaye Arona ñu ñaanal ki nga xamante ni mooy Cheikh Li Mokhtar mi nga xamante ni bii moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha wuutu dafa dabari Serigne waxtu yi buy bind daan bàyyi ko ñu fi nga xamante ni bii mooy ci résidence Cheikh Khadim waaye ñaanal Cheikh Mouhamadou nga xamante ni mooy Serigne Serigne bi nga xamante ni moo wëcc maam nga xamante ne mooy doomi Serigne Touba ji mujj ci ko suuf muy Serigne Saliou noonu la ñuy yéegale ñaan gi ba ci Cheikh Cheikh Abdoul Khadir Serigne ak Serigne Touba bi nga xamante ni jot ñoo doon xalif ku mel ni Cheikh Mamadou Bachir ku mel ni Serigne Chouaïbou ku mel ni Serigne Ibrahima Mbacké ku mel ni Serigne Abdou Samad ku mel ni Serigne Abdoulahi Borom Dër bi ñooñu nga xam ne ay doomi Serigne Touba lañ yoo xamante ne jot ay xalifa te seen jamono ne fi ñoom ñëpp ñaanal leen bi jaahi Cheikhna Ahmadoul Khadim suñu borom dafa leen tawfiq ilaahi si yàlla loolu defe naa rafet na lool xam nga département bu Mbacké la nga doon tudd léegi Touba ni muy ni ñu fi tuxoo mais département bu Mbacké ñàkkul ni euh, kii di Omar am na chance ànd ak tuuti ñuy def ay euh, visite euh, kii di waat daanaka dëkk yi fi gent bëri na lool am dëkk yoo xam ne nii fi ñu toll dend ak Touba ay quartiers yooyu ay dëkk la ñu récupéré ndax man daanaa dem dëkk ci mel ni Daaru Dimb Touba Fall Touba Fall ak ay Daaru Dimb la ko takkaloo noonu ak Touba daanaka léegi da koy compter ci Touba te bu bi ñu koy prévoir lii di Touba grande mosquée bi rek Touba mosquée leen prévoir kon jàpp naa ni gouvernement bi c'est vrai mu ngi góorgóorlu mais lu nu mën a wax moo di ni waa Touba am na yooyu attanut mënuñu ko attanal seen bopp faaw gouvernement bi taxaw ci gën a yokk forage yi ndox mi di doon ko fay wala du ko naan loolu géew yu yaatu la laaj ndax jàpp naa ni murid yi bëgg nañ di naan ndox mu sell ndax ndox mi ko koo fayoo ku koy fay tam daanaka dam koy fay sa coobare mais du ndox moo mën a naan ndox la moo xam ne industrie yi noo ko soxla ndox mu mën a sang mu a raxas waaye dox mi kenn mënu ko naan kon jàpp naa ni faw nu penco waxtaan bi waa Tuubaa bëgg nañ lu baax ku ñu leen di leen indil SDE ngeen di naan ndox mu sell li koy jëfandikoo moo di waa Touba dañuy jënd ndoxu ndoxu teen ci bu cher cher di dem ci unité de yi yi stabiliser ndox mi di fa fay xaalis bu cher cher kon ñooñu ku ne leen dinaa la indi ndoxu SDE ngay am ndox de manière régulière ba pare ndox mi baax ñoom bëgg nañ lu baax waaye loolu waxtaan nañ koy euh, amal. mais li bon mooy di wax ni ndox dina ñàkk nga xam ne benn polémique bu dox diggante doctoral bu foor ak yenn kilifa yi ndax moom dafa wax ni ndox mi manqué wul te ndox mi manqué na wax ni forage yi dox na c'est vrai askan wi am nañ ci loo xam ne nii seen la ndax nit buy installé këram jël tuyau boo xam ne da war a jël tuyau boo xam ni centimètres yi war a doon xaaj ba sax doonu ko bu mag bu rës amee mais du am ndox fekk ndox bi mu ngi ci tuyau yi mais mën ta yegg si loolu aussi faaw ko dem état généraux ndox ci Touba jàpp naa loolu rek moo ko mën a réglé expansion dëkk bi tam faaw nu contrôler ko ndax ab dëkk mënul di ko fi di màgg te kenn di ko gunge ak infrastructure ndax mën ngaa gis digg bi nii Touba maanaam ñëpp nekk ci seen jàmm di faju bu bëggee lekk di lekk mais boo demee ci sa teen ci àll bi mais jàppandi man fi mu ne ay jafe-jafe la ñuy dund mën naa jàpp ni pauvreté ci la nekk bu feebaree amul fu nu fajoo loolu sëñ bi bu ko yëgee dina ci indi ay saafara ànd koog taalibe yi mais dëkk bi ni muy yëkkoo moo yéemu waaye nag loolee rek mooy yàlla moo nangul Serigne Touba wooteem Serigne Touba moo woote woon dëkkam bii dafa bëgg nit ñi fekk ko fi waaye itam dafa dund dund ko seet def naa loola moo nangu waaye nanu ñaan rek yàlla suñu borom yokk xéewal yi ngir daal dëkk bi ku fi mën a dund rek mu mën a muxtaar mu mel ni ku tedd kaan yi imam moom uh, ki nga ne mooy Serigne Sidik Serigne uh, uh, Mountakha Bassirou Mbacké bu yegsee ministre de l'intérieur i xaar daal di door cérémonie officielle bi adoona kon Mouride Sarr bi egg si na jàmbari Serigne Touba egg si na Euh, rakki Cheikh Mamadou Moustapha Bachir gi agsi na euh, doon gi doon Serigne Touba waxoon naa ko sànq Serigne Touba am nañ lenn ci njabootam yoo xam ne jot ñoo doon xalifa Cheikh Mamadou Bachir ci la bokk moo bind Minanul Baaxil Xadim di boo xamante ni bii boo bëggee xam histoire Serigne Touba mu bokk bi ak Serigne Abdou Samad moom Serigne Touba Serigne Abdou Samad Moussa Touba euh, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir na egsi na fi nga xamante ni bii mooy fi nga xam ne fi la war a amee cérémonie officielle bi kon ñu bàyyi Ousmane Mbengue rek moom it mu feeñal yéeneem moom mi nga xamante ni mooy loxol ndajoram moo yor ki nga xamante ni mooy dugub yoonu murid bi Cheikh Mamadou Moutakha si na kon dafa mel ni ku baax tamit jërëjëf Oustaz comme ni nga ko waxee noonu la euh, sëñ Bassirou Khadre moo jiitu woon noonu gis na léegi ñu ngi wane euh, sëñ Moutakha euh, Bassirou Mbacké ak colom gi ak kanam gu yaañ gi ndeysaan comme ni ñu koy faral di waxee mi ngi takk nag ay lon ñuul comme ni ngeen ko gisee ak mbaxanaam mi nga xam ne daanaka xàmme nañ ko ci télévision moom sëñ Moutakha Mbacké xalifa général pour li muy mbaxanaam loolu déggee naan mbaxaram ci ruuja Arouna ngay xam ne dara waaw sëñ Moussa Bachir tamit ñëw roy ko ci sëriñ Bachir waaye Cheikh ko valoriser gën ko valoriser waaw tey ji ci écran mu yàññi ko lool ci mu takk ko moom sëñ euh, Mountakha Mbacké Bassirou mi ngi noonu dugg a ak sëñ Bass mi nga xam ne nag moom mooy porte parole am ci kanam tuuti nag ñu fas yéene ko Euh, dégg euh, ngir mu jibal kàddu yi nga xam ne nag moom la ko sëñ bi dénk jëmale ko nekk ci gouvernement bi jëmale ko it ci askanu Sénégal waaye it jëmale ko ci mouvement islamique bi yëpp ndax wax nañ ko ndaje la moo xam ne lu ci bari euh, dana am ay message yoo xam ne sax dina jëm ci jàmm dina jëm ci wàllu booloo ci wàllu diine ji dina jëm ci wàllu mbokkoo ak nekk nekk nu askan wi loolu yëpp dafa nekk nekk lu am am am solo loo xam ni dañ ko Ousmane yaakaar naa ne waaw waaw xam nga ci waxtu wi ndax xam nga lii may wax dama jafe moom xaw ma lu ñu fay waa waaw loolu moom dëgg la bàyyi nga ne aju boo ñëwee Touba li ma tey war a ci wax di ngay jël doo ko jënd jiite li nga waaw dëgg la loolu moom dëgg la waaw boo fa ñëwee jour boo xam ne xew mm. marché Ocass maanaam maanaam midi bi lépp di fonction maanaam maanaam ñoom fexe nañ sax euh, ñun Ndakaaru euh, dimanche mooy suñu jour férié Touba moom fexe nañ ba imposé si maanaam ajjuma am na loo xam ne da ngay xaar euh, mën nga am chance après juma nga jënd waaye mën nga am chance samedi dëgg la ñu kon di dalal sëñ Mountakha mi ngi noonu toog lii dafa waree ne rek xëy na kilifa yëpp ñëw nañ ndax Euh, lii wane ni xëy na ministre de l' intérieur ñëw na waaye comme bi toog na mu ngi nii euh, euh, ministre de l' intérieur moom it mi ngi ni mi ngi nii toog ci wetam ñu koy soog a seetal booba léegi moom Aly Ngouille Ndiaye mi ngi noonu ci wetu sëñ bi baa ngi déyanteeg ñi nga xam ne nag ñoom ñoo gën a jege di ay jege ñaaleem ci li nga xam ne moo di cérémonie ñi ngi gis it ñi nga xam ni ñooy ay gan du ñàkk ni waa Mauritanie waa Maroc wala waa Tunisie nga xam ne ñoom it waa islamique lañ ko mosuñu di ràkkee li nga xam ne moo di cérémonie officiel bu bu bu Touba ambassadeur yi comme ni ko waxee ñoom it xëy na gisuñu bu ñu dugg waaye jot na ni ñoom it ñu ngi ci biir bi ak ñenn ñi nga xam ne xëy na dañoo ànd ak euh, jëriñ ñu dénk wàllu euh, biir réew yi muy ak Ndiaye ndax Ndiaye moom moo ànd ak ay jëriñ yoo xam ne ñoom it euh, dañu ñëw teew ci ndaje mi ndax gouvernement la gouvernement nag dafa bari ay bànqaas ñi yor wàllu ndox mi ñi yor wàllu sécurité bi ñi yor wàllu li nga xam ne moo jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi ñëpp ku ci nekk am nga si cër boo xam ni dox nga ko ci boobaak léegi te jàpp na ñoom ñëpp tey ñi fi teew ndax euh, jamono la boo xam ni danañu ci euh, xam ni euh, doon ay am solo ngir nag daal màggal gi doon màggal gu mucc ayib ndax loolu rek lañ ci jub si mooy nit ñëw màggal si jàmm fekk fi jàmm li nga xam ne mooy digle sëñ Tuubaa yi buñ fa jógee yi buñ mën a seen njaboot ci jàmm te loolu defe naa ni euh, xam nga njiitu réew mi di président Macky Sall ñëw na fi euh, àjjuma jël mu fi la jullee lañu dund kon tey euh, xanaa di jooy rek ak di ñettlu accident yi nga xam ne am na ndax wax nañu toll ci fukki yoon wi dogalu borom bi la mënul woon a ñàkk waaye jàpp nañu it kaaraange gi daal ci yoon bi boo gisee autoroute bi boo gisee axe yu mag yi nga xam ni mooy jóge Daaru Musi wala Jurbel foofu yëpp yaa ngi gis gendarme yi ñi ngi xool yoon bi ñi ngi contrôler woto yi ñu ngi def li nga xam ne nag lii bi war waaye nag yàlla moom mooy dogal xëy na loolu ko neex loolu ko soob ñooñu loolu foofu nga xam ne moom seen bakkan ba xëy na tey ne dañuy ñaan rek yàlla xaare leen àjjana waaye nag lii daal mooy màggalu Touba bis bi nga xam ne nag moom la seen Touba di woon am na ki nga xam ne moo di borom ah, ah, ah, bi te def naa ni loolu mooy tànk ci loolu rek la ñu doxal ku fi ñëw njorte sañu ne rek da ñëw ngir sant Sëriñ ki nga xam ne moo borom bi moom ko assemblée bi defal ko xewal yi nga xam ne tey jii am na yëpp jëriñoo nañ ko defal ko xewal yi nga xam ne tey jii waa Sénégal yëpp ñu ngi koy jëriñoo Sénégal nag ndeysaan euh, mën nañu wax ne daal euh, sëñ Touba liggéey feeñ na fi macha allah euh, liggéeyam feeñ na liggéey na boo xam ne nangul nañ ko ko te ñëpp gis nañ ci seen bopp ndax kilifa diine yi tey boo xoolee maa ngi koy wax démb boo xoolee Ndiassane boo xoolee Ceneba boo xoolee Tiwaawoon boo xoolee Yoof nga xool njabootu famille Omar yéen nga xool waa Ñaseen ñëpp kenn bu def bu Touba euh, wootee dafa mel ne ñoom ñoo woote dañ koy def seen biir bopp ndax euh, lépp rek euh, ci na ni daal lépp benn la tey jii sëñ Muntaxa mi ngi ci ñaareelu màggalam ñaareelu màggalam ginnaaw bi nga xamee ni jot na li nga xam ne moo di xalifa chaque fois bu ma ko gisee ni cérémonie officielle dama koy gis sa cérémonie officielle nga xam ne sëñ Sëriñ Muxtaar nga xam ne da nga doon ñëw rek nga gis ko mu sukk ci suuf wàcce mbaxana mi <laughs> jël alxuraan yi nekk rek dina fa boobu lañ doon gis ci télévision tey jii mu ngi nii cérémonie baa ngi door a adoon kay yaay imaam ah dafa mel ni baat bi xamee nga ko ndax ak yi bu furtu bi lisaan lisaan تيقنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله يا جملة الخلق شهدوا لليوم فيه يحوس المجرمون اللوم بأني الدارين عبد الله خديم عبده بن عبد الله الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم أي صلى بتسليم على علي أكرمي بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمني بسره المخفي من قاد خطي إلى الكرسي قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا ñu déglu ñu ngi tàmbali waxtaan wi ñu déglu Cheikh Sidi Mokhtar Ka yooyu day yéeme na ndax ñaari président de Sëñ Tuubaa ci xaside lay Cheikh Sidi Mokhtar Ka ginnaaw xaside bu wax mu taxaa gay ubbee na ko moom mooy ki nga xamante ni bii mooy jël kaddu gi mbokk yi ñu xamale ne nag njabootug ngi teew fii ci Tuubaa ñu déglu Sidi Mokhtar Ka mooy fas yéene eh, jàng waxtaan itam ci kàllaama arab alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala afdalil mursalin sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man daa bi daawatihi ila yawmi ddin laqad araada almushrikuun almushrikuun al agbiyaa laqad araada almushrikuun al agbiyaa an yutfi'uu nuura imaami al anbiyaa wastamlakuu kulla albilaadi wa tagaw wa aktharuu fiiha alfasaada wa bagaw kalla sa yaclamuuna summa kalla sa yaclamuuna annahu qad jalla alam yaraw alam yaraw ana alladi bana sama binaauhu bixasadin lan yuhdama safiha man araada an yuxfida ma rafaahu lilfawqi rafiu sama wallahi la yutfiu nuura allahi acdaauhu bilmakri walafwaahi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bala may tàmbali damay ñaan listu délégation yi nga xam ne ñoo fi teewal seeni réew te am ku ko jël ci man sànq mu indi ko ma man ko tudd sëriñ bi gannaaw bi ñu la nuyoo ziyaare la nuyu kilifa yi nuyu dafa am nitu yàlla koo xam ne dafa laxasaayoo ngir yëkkati diine lislaam laxasaayoo ngir rokkas sampub sunu borom am ñu taxaw ne ko doo ko fi defe jàpp ko génne ko réew mi wax ne suñu ko génnee su yàggee àll ñu fàtte ko fàtte lim doon wax ak li mu woon kookee ñu bëggoon a fàtte ba tax génne woon ko réew mi yàlla fay na ko tontul na ko tontu yu bari bisub tey bii tontul ci nga xam ne dañoo bëggoon ñu fàtte ko mu bëgg yëkkati diine bëgg rokkas sampub sunu borom ñu ne ko du fi amee yàlla tontul na ko tontu yu bari waa waa waaye bisub masalikul jinaan ca ndakaaru tontu la tontu la loo xam ne seeni pexe sottiwul muy ndamul lislaam di sabu senegaal di bàkku Cheikh Ahmad Bamba nga àndoon ak say kilifa laxasaayu doon seen jëwriñ doon seen ndaw ànd kook ñoom waaye sunu borom defal la tawfiq ba liggéey ba sottee ci say loxo lislaam yëpp sant ci yàlla gërëm la ci ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom lépp loo tàmbali yàlla na nga ko àggale sanq nag laata ngay ñëw boo xam ne waxtu yi dafa xat ndax ajuma la te kilifa diine yi ne fi set xam nañ ne yow ak ñoom su maxtaar mi muxtaar bi xasee tàbbi dootu man a toog moo tax ñu njëkkante woon lim déléga délégation yëpp waaye Serigne Cheikh Mouhamadul Bachir bi nga xam ne moo yor sa kàddu ñun dañuy ubbi rek mu wax ma ne na nga leen tudd ci kanam Serigne bi kon danaa ci tudd li xaj ci waxtu wi lu ci xajul ñu jëm koo mottali waa kër maam Alxaaji Malick Si teew nañu sëñ Mansour moo leen jiite Ndiassane teew nañu sëñ Abdourahmane Kounta moo leen jiite Canaba euh, teew nañu sëñ Cheikh Tidiane Seck moo leen jiite Alhaji Omar Foutiyu njabootam teew nañu sëriñ Cheikh Tidiane Tall ak sëriñ Omar Ba ñoo leen jiite maam Alhaji Ahmad Baro teew nañu sëñ Dam ma nga ne toog moo leen jiite Medina Baye teew nañu Sida Arabi di wala réew sëriñ bi teew na jiite leen gën na ñeseen imaam Mouhamad Arabi Niass mi ngi nii teew ci sa kanam laayeen sa doom si na Issa Laay def na mu daan def teew na waa Ibadu Rahman leen jiite waa Ndeer suñu Mouhamad Jullit Kunta ku xam na digganteem ak Touba teew na jaamal teew nañu Alxaaji Ousmane Cissé jiite leen Pire teew nañu suñ Mansour jiite leen ak sëriñ Maodo ndànk teew nañu sëñ Aliou Muxtaar Kunta jiite leen askaay sëriñ Yaxya Guèye waa kër sëñ Abbas sëñ Abdoulaye Sall waa taslim alxaaji Xalifa Jaabi euh, Bamba Moodi sëriñ Mouhamadou Sall ma nga ne toog waa Guyat sëñ Moustapha Haydar waa Pete Warak sëriñ Jibi mbooloom imaam yi ak xutabaa yi imaam Ahmad Dame Ndiaye ma ne toog njabootu doomi soxna yi sëriñ Habib Sakho jiite leen waa Digaan sëriñ Ibrahima Sow sëriñ Ibrahima Sow jiite leen waa AIS sëriñ Babacar Cissé jiite leen ñu ànd ak sa doom sëriñ Maam Cheikh daare alquran yi teew nañu ci njiit imaam Adama Seck waa kër Cheikh Mouhamad Nabi Guèye sëñ Mouhamad Camara jiite leen waa Kuli Alpha sëñ Moustapha Ba jiite leen waa Gad Ardo sëñ Sidi Hamad Ba jiite waa Ngwan sëñ Maxtaar Seck jiite leen waa kër almaami Maba Jaxu Ba sëñ Abdou Wahab Ba jiite waa kër maam Thierno Kandji sëñ Alhaji Kandji jiite jiite leen fondation Xaali Amar Fall Alhaji Malick Fall jiite leen Rumde Thierno Ousmane Haya Sow jiite kër Socé euh, sëriñ Ibrahima Sakho jiite leen waa kër alxaaji Mbàkke Tànjang Serigne Baye Niass Tànjang jiite leen daa Serigne de alxaaji Sangoone Jaañ ndey ji réew di ko sonn ca bis bisu Masalik ku ci sonn la moom alxaaji Sangoone Jaañ lew na kaneen Serigne Mansour Kan moo leen jiite institut islamique docteur Thierno Ka jiite leen euh, mbalaxe Serigne Aliou Dia moo leen jiite euh, daaray kokke Serigne Ahmad Mokhtar Lo jiite leen waa kër Maam Maska ca Gàmbi sëriñ Mouhamad Tahir ka jiite leen waa kër Alxaaj Tijaan ñaa ngi ca ndax sëriñ Ibrahima ñaa ngi jiite leen waa kër maam Masamba Thiam ku ne xam na digganteem ak maam Maram al Murshid Ahmad Iyaan Thiam di sa xarit di sa rak jiite leen képp ku imaam sëriñ Yoro Maar jiite leen wóoru maat yu rakki xalifa bu muy Cheikh Alfahim Ba toog jimbira Kébémer di njaboot bu mag Cheikh Sadbou ak Cheikh Talibou yooyu jiite leen Fapalaadu ca Casamance sëñ Mouhamadou Lamine Cissé jiite leen waa kër maam Alhaji Rawaan Ngom sëriñ Salif Ngom jiite leen waa kër Alhaji Omar Dramé sëñ Ibrahim Dramé jiite leen waa kër Tafsir Omar Sall sëñ maam Omar Sall jiite leen njabootu maam Makhtar Kala sëñ Makhtar Kala sëtam sëñ Aliou ak sëñ jiite leen mbooloom imaam yi nekk Saly imaam Cheikh Tidiane Fall jiite leen tafsir Mor Ndiour ca Thiès imaam Ahmad Seck Ndiour jiite leen waa kër Alhaji Ahmad Dem Sokone sëñ Abdoulaye Dem jiite leen mbooloom imaam yi nekk Pikine Alhaji Malick Niang Dieng jiite leen almuhajirun wal ansar ca Canada Serigne Malick Top jiite leen euh, Djibouti am na délégation bu fu bàyyi ko soxna Suwaat Momin Bahdoun jiite jiite ko ak soxna Hibu Abdi Omar Soumal am na délégation bu bàyyi ko Mouhamad Omar Sahid moo ko jiite Al Husseini Mouhamad Adjan di kilifa jiite ko France docteur Ifraq Karim jiite ko Seydi Ilias Omar jiite ko di imam Italie Frael Paola di membre Dayatul Ansar nga xam ne ay italien képp ñoo ko siq yu nekk ay taalibe Cheikh Ahmad Bamba Tunis docteur Barhouni euh, jiite délégation ba Misra Seyid Oussama Mahmoud Maghrib moom Maroc niñ ko niñ ko baax a defee saaxibul jalaala almalik Mouhamadou Sadis yabal na délégation bu mag bi biir ak oustaz Hassan Al-Hazouzi ak juróomi nit te xam ngeen ne ambassadeur Gabon euh, ambassadeur Maroc teew na mooy doyen ambassadeur yi nekk ci Sénégal gambi président Adama Barrow yabal na délégation ci njiitul musa Dramé Ibrahim ak Ibrahim Boy ak Alhaji Dembo Bojang imam Thierno Ka wax naa ko li euh, nga xam ne mooy imam grande bu Banjul teew na cheikh qaribullah nasir kibaar derul qadri bi fi nigeria yabane délégation côte d'ivoire oustaz bamba moussa euh, doon taale bi cheikh ahmad bamba ñu tuddee ko cheikh ahmad bamba teew na ànd ak mbooloo Mauritanie limoon naa leen sànq ay kilifay diine ak njaboot yoo xam ne dañoo amoon kóllëre ak sëriñ bi teew nañu xam ngeen ne barki démb rek euh, président euh, Wuld Cheikh Mouhamed Aswani jàppal na ministre bi yore wàllu euh, lislaam ak njàngalem cosaan teewoon na ànd ak mbooloo mu takku ba saafoo tege ca kër ga Pakistan tam am na délégation bu fu bàyyi ko teew ci màggal gi Brésil am na ay professeurs yu fa bàyyi ko teew ci màggal gi Inde ñoom seen avion ñëwul ci waxtoom moo tax euh, agsi wuñu waaye waajoon nañ Mali Thierno Aboubacar euh, Baro mi ngi xam ne moo fa nekk al majlis majlisul ala al islami euh, teew na ak Chérif Abdoul Qadir Haydara ca Guinée Conakry teewal na fa njabootu Chérif Fanta Madi Chérif Mballo mu nga xam ne moo moo suñu mbokk yi nga xam ne chia lañ ci Sénégal moo doon jiite teew na ànd ak mbooloo mu bare bare li fi teew nag ci ay ambassadeur sànq laa leen tudd Euh, liste bi dañ koo jël ci man waaye ñaar fukki ambassadeur ñoo fi teew limoon naa lim waaye sëñ Bachir dafa waxoon ne naa leen tuddaat ci sa kanam ba nga xam ne seeni réew bàyyi nañ la xel waaye dafa am ku jël ci man kayit yi te xamatuma kan kan la waaye waaye daal ñaar fukki ambassadeur teew nañ ci barab bi lii daal ci tënk ma nga xam ne moom lañ doon jottali waaye ñu ma ko waxe woon waxtu wi dafa xat te di ajuma te kilifa diine yi ne ci wetu sëñ bi euh, bu muxtaar mi tabet mook sëriñ bi ñoom ak sëriñ bi dootuñu mën a toog waaw Chérif Haydar nga xam ne moo jiite chia yi nekk Sénégal moom itam teew na docteur Ahmad Khalifa Niass mi nga xam ne xaaritu sëriñ bi la di rakkam moom itam euh, teew na mooy Ahmad Khalifa su wax na ko Mouhamad Ali Aydar di kilifa ak ahlul bayt moom itam teew na ci bis bi ànd ak Bassirou Sarr ancien ministre di taalibi Cheikh Mouhamadou Bachir ñoom itam teew nañoo ci bis bi kon damay jox rek kàddu gi ministre Aly Ngouille euh, Ndiaye mu jottali li nga xam ne moom lañ koy yónni nappee jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bachir. baax na baax na su defee euh, sëñ bi ñaan jërë ngeen ñu déglu ministre Aly Ngouille moom la président Macky Sall yebal ci bàyyam sëriñam ñun ñëpp ñu ànd déglu ko. waaw kon ñu déglu mi nga xamante ni bii moo yor kàddu président de la république. fulaw fulaw yi nekk Dakar ñu ngi itam teew nañ ak délégation bu mag a mag a mag. ci àjjuma kon mbokk yi euh, dégg ngeen li nga xam ne ñi nga xamante ni ñoo bañ ko ci balaw yi fasantikoo ak réew yi ak autorité yi nga xamante ni ñoo fa teewal seen i réew le ministre Aly Ngouille Ndiaye nag moo ci turu président de la république ñu koy ñaanal moom it le ministre de l'intérieur yàlla jàppale Cheikh Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mi ngi feggoo ak ki nga xamante ni bii moo di Cheikh Mahamadou Mountakha Bassir kon ñu déglu le ministre Aliou Ndiaye mu yëkki ay kàddu ci turu président Macky Sall. toogaay yi nga xam ne itam ñoo fi jiitu toogaayu ministre de l'intérieur Aliou Ngoye Ndiaye kon nag lii loo xam ne nii defin la woo xam ne. a'uuzu billahi a shaytaani rajiim yeesal la. bismillahi rahmaani rahiim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi ci turu président de la république président Macky Sall man ak délégation bu takko bi ma àndal ñu ràññee ci ministre d'état Ndeye Marième Badiane ministre Matar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 suñu Sidi Diakhaté conseil économique social et environnemental suñ gàdd Sall Alioune Sall Khadim Khol Baye Mor Ndiaye Ibrahima Faye directeur général Modou Diagne Fada ak directeur général Gallo Ba sëriñ bi président yónni ñu fi ak délégation boobu ñu ànd ñoo ngi nuyu di la ziar yow mi fii Serigne Touba Serigne Mouhamadoul Mountakha Bachir Mbacké xalif général kullu murit di la ndokkeel di ndokkeel it njabootu xaadimu rasul ak njabootu cheikh yu xaadimu rasul yépp ci bés bii bés bu màgg bii suñu boroom tànnal sëriñ Touba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 diwaanu Miftaahu Nasri yàlla mi ngi may dimbale mbindee fii danañu ma topp man Bàmba ci réew mi ak bitim réew ndax may boroom njariñ te duma lor kenn sëriñ bi bala ñoo sori dañu lay ndokkeelaat ci ubbuteeku Masaalikul Jinaan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 loolu nag dafa bokk ci li nga xam ne lii sëriñ bi ma ko ñaanaloon taalibe yi ak képp ku ñëw ci moom te di ab jullit mu waxoon ni ku ñëw ci man lu bakaram bari bari jéggal ko te boo ko jéggalee ba noppi ay loxom bu ñuy gëj di am alal sëriñ bi président makisal Sall bi fi ñëwee fan yi ñu génn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 newoon na bu màggal gi weesoo nañ ci taxaw bu neexee yàlla solution yi ñu mën trouvé danañ ci ànd ak yéen. ci wàllu assenisement sëriñ bi daanaka ren ñu ngi ci catal nawet bi waaye kenn koy xam na ne déwén ak gannaaw déwén màggal gi ci biir nag ñu fekk président ne leen taxaw également trouver solution pour que taataay ci dëkk bi mu daal di fi jógee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 jaram nga xool kon di kàddu nga euh, euh, na ko kon jëm euh, ci wàllu yëkkataat li nga xam ne mooy yéenay gouvernement bi ci gunge Touba nga xam ne bi gunge Touba ci màggaayam ak gunge Touba ci li nga xam ne moom pour le Sénégal li nga xam ne day confirmer exception Sénégal mooy daje président Abdoulaye Wade daje daje président Macky Sall masalikul ñaan gi ñu bi ñu wasifa ci masal ay mbir yoo xamante ni suñu xaali Aliou Ndiaye ñëwaat na ci euh, di ko sant sëriñ bi ndax loolu lépp loxom suñu mun taxaa génn si euh, ndox mi doon jafe-jafe moom kay xanaa dollee sant rek ndax am na loo xam ne lii bu ci bët tegee ñu xam ko mu doon euh, taarix kenn du ci tuut indi sikki sàkk waaye laata loolu ñu déglu si Mouhamadul Bachir sëñ Bass Abdou Khadir mi nga xam ne mooy tàggu sëñ bi wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ashaab alsamaha almashaayix walulama wa mumathili turuqi suufiya waljamciyat alislamiya wa qaadat almuridiya ziyaadata wasiri daaxiliya mumathili raisa jumhuriya wal ofdi almurafiq ashaab alsaada alsufra وعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسنغال أيها الإخوة المسلمون والمريدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيسعدني أن أوجه إليكم باسم سماحة الخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى وزاد من نصره وتمكينه هذه الكلمة fi ixtitaami faaliyat alixtifali bilmagal li haasihi sana ihda wa arbain wa arbamia wa alf wa tatadammanu alkalima awalan shukran jazilan muwajjahan ilaykum أيها الإخوة والأحباء على الحضور المشرف والمشاركة الإيجابية في هذا في هذا الحدث الديني الثقافي الاجتماعي السنوي كما نشكر كل الذين وقفوا وقفوا معنا من قريب أو بعيد وقدموا إلينا عونا معنويا أو ماديا مما ساعد في إنجاه الحرص على هذا الوجه الأحسن والأكمل وجزاكم الله خير الجزاء وجزاء الخير وثانيا تتضمن الكلمة تذكيرا بمغزى هذا الاحتفاء allazi nuxallidu bihi zikra alxaybati albahriya li cheikhina ahmad alqadim qaddasa allahu ruuhahu allati laaqa xilaala mixanan jalila natijat anha minahun jamila awjabat ala alabdi alxadim muqaabalat alixsaani bilixsaan min xilaali adaabi waajibi shukri lillahi taala ala nicmati alibtilaai addaali ala alixtiyaari wal ishtifaa إذا أراد الله بعبده خير ابتلاه فالحرث تجزيد لواجب الشكر أحد مقامات اليقين كما أنه تنفيذ لأمر الله تعالى القائل واشكروا لي ولا تكفرون ثالثا وأخيرا تتضمن الكلمة توجيها للمريدين ونصيحة للمسلمين على ضرورة التقيد بتعاليم الإسلام وفق ما قرره الشيخ أحمد القديم رضي الله عنه في آخر كلمة له إلى الناس سماها أمين سره الشيخ محمد أمين جب أبدني بخطبة ومسس قال فيها الشيخ رضي الله عنه عليكم بتوجيه نظركم وهممكم إلى المسألتين أن تعلموا ما أمرتم به وتفعلوا وتعلموا ما نهيتم عنه وتنتهوا وشدوا أيديكم على هاتين المسألتين فإنهما علوم الأول والآخرين يعني بالعمل بمقتضاهما سبخ من سبخ وفضل من فضل من الأولين والآخرين ثم قال واجتهدوا في الصلوات الخمس والصدقة والدعاء ولأهمية هذه الوصية الحديمية الأخيرة فإن الشيخ محمد المنتقى حفظه الله يذكر الجميع بها ويحثكم عليها ففيها أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وتلخص في أمرين اثنين هما العلم النافع والعمل الصالح ولا بد معهما من الأدب المرضي الذي يكسبهما الكمال والقبول فاحرصوا عليها تعتنموا وتنجوا وفقنا الله وإياكم lima yuhibbu wa yarda assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigal sëriñ bi cheikh mouhamadou muntaxa alxalifatu lil muridiya ñu ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool am ànd ak wér ba mboolem naal yu rëy yi nga xam ne am na ko ci islam am ko ci liggéey sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kattana ko wér mu yàgg fi ndax ndamu lislaam jëpp la sagu yoon muur bépp la ñëpp a koy mas di ko ñaanal te xawaayam suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg loolu tam ànd ak wér ñi ci li ci ndigalam ak kàddoom ak xalaatam ci la ñuy dikkee ji leen jot li jéem a jot li kat yi nga xam ne bàyyi ko la ci moom ngir fàttali leen ko ci bis bii nga xam ne moo ñu fi dajale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 sëriñ bi nee bi mi leen koy sant yéen mboolem kilifa yi fi teewal këri diine yi dañuy ñu bokkoo moom noonu li ak mboolem mbooloo yi wuy ci turu lislaam ñëpp délégation yi bàyyi ko ci biir réew mi ak yi bàyyi ko bitim réew ne yàlla suñu borom mu wax ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum te mooy xamanu nu julli yëpp ne julli mbokk dëgg-dëgg mooy ki mu bokkal diine lislaam mu ngi seddeel ñëpp ne dundal ngeen bokk googu seen diggante njabootu Serigne Touba gi ci la mu gën a rafet kon yàlla na yàlla fay gën ji pay te musal nu ci lu bokk ay li boole ba seytaane ba njamoon ginnaaw loolu yéen délégation bi fi teewal njiit réew président Macky Sall ci njiital ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak mboolem ministre yi mu àndal ak mboolem délégation ak seen service yëpp ñi fi teewal ak mboolem ñi fi teewal bànqaas yu fond sëriñ bi nee na leen di yóbbante ay cant ak i ngërëm ci président ci taxawaay bu ma sëkk bu ma taxaw ci diggam ak moom diggal koy mboolem ijërëm ñu taxawee ko ci màggal gi nee na mi ngi koy ñaanal yàlla mu jàppale ko bëri ko kattan ak man-man boo mu mën a àggale mboolem ay naalam ci réew waxaat dama bii ci guddi ne ma nee ko ak cant ak ngërëm képp laa ko amel ak xamal ko ne ko la ma ko waxoon ne ko tàmbali damaa ñaan nee na fas ñaanal ko mboolem lim yéen ci yoon yàlla mottali ko di ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne moom la président tegoon joxoon ndigal mooy saytu ak a mboolem lu aju ci màggal gi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 sëriñ bi nee na mi ngi sant ci seen jëf ci màggal gi ak seenu teewaay di nuyu mboolem mber mboolem presse ak média yi fi teew yëpp ci seenu liggéey ci màggal gi di sant di gërëm bu baax bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoo wuyu si ndigalu sëriñ Tuubaa li mu joxe woon ci bis bi ñu doon dundal mooy fukki fan ak juróom-ñett ci yoonu safar mu sàkkoo ñu sant la ko ci yàlla ci xéewal yu rëy yu bari yi koy dikkee te sabab woon ci tukki gi tàmbali woon ci bis bi doonoon nattu boo xam ne ay xéewal rek la jur kamin ni amatin fii tey neq ma ginnaaw loolu nag sëriñ bi nee na ngi dellu si waat ak noonu ci kàddu yu fàttali ak soññe yi mu baaxoo yëkkati ci jataay bii jëmee ko ci ñëw bokkal diine lislaam ak kàddu yoo xam ne mi ngi ko beral ñi mu seq réew mi lu jiitu muy yegsi ci li mu war a war a wax ak njabootu yoonu wér te mooy ñi mu sañ a digal sañ leen a sëriñ bi wax na ne ñu ngi sàkku ci yéen njabootu lislaam gépp rawat na yéen yàlla teg ci kanam bu ñu ànd feddiliwaat suñuy laxasaay yokk suñu yitte bu baax ci sàmm ak aar ndono li nga xam ne moom la fi rasulullahi sallallahu alayhi wa bàyyi te suñu kilifa yu baax yi doon ko wattu di ko sàmm ñu bàyyi xel bu baax ci mboolem li jug ngir xajamal ndono loolu ak gàllankoor ko njabootu lislaam gi bëgg a dund si biir ak di ko dëgëral rawatina lu ñuy bind ak lu ñuy wax di ko jaar ci média yi mu wax ni lii di soppeeku gu am tey ci doxinu jamono ak yàqu-yàqu yi mu àndaale tax na ñu bari jàpp nañu ne waruñoo am kilifa moo tax nu war a fedd feddali suñuy laxasaay te jëme suñu jitte ci jàngal ndaw ñi ak yar leen yarub diine boole ca dina leen taxawu suñu kem kattan ci lépp lu nu man yéen ndaw ñi itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ ci ngeen gën a farlu bu baax ci sàkku xam-xam ak melokaan yu baax yi ab jullit war a yor te boole ca tàggat seen bopp bu baax ci jaamu yàlla ak liggéey gi mën na am lu ngeen mën a sukkandikoo ba mën a sàmm seen ngor ak seen diine mi ngi leen di digal itam képp kuy seen kilifa ngeen war maal ko te jox ko cëru kilifteef yéen ñi mu bokk réew mi nag rawatina njabootul islam bi mi ngi nuy digal li ñu yombal at ayush asemi te loolu mooy nun ñi yàlla tànn réew mi nu bokk dëkk te nu war nun ko dogalub yàlla boobu ci ànd boole suñuy pexe ak sunu man-man jëme ko ci luy aar sunu réew mi di fa saxal jàmm aku dal di yokki naataange ak xiiwale te loolu la ci jiitu ci daan ko may mooy la aju ci wàllu diine kenn ku rekk jàpp ca la la doy ak la nga gëm te ci pas-pas ak la keneen gëm yàlla wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su ma soboon ma far mboolem nit ñi ma mboolem ni ñi ñu gëm diine jii ma la jox muy lislaam kon bu leen jéem a forcé mukk walaw shaa rabbuka la amana man fi l ardi kulluhum jamian afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin wax na itam ak julli neen ñereer ba jël ay rab ak doj def yàlla yuy jàmm sax bu leen jëmee wax ju ñaaw ci ci loolee ñu gëm ndax bu ngeen ko te ñu delloo ma ko jëmee wax ju ñaaw ci man wala tasubbu llazina yad'una min dunillahi subu yasubbu llaha adwan bi xayri ilmin waxaat na ak jul yi ne leen ñi ngeen dëkkal te bokk leen diine waaye xatalu ñu leen buñu xatalu ñu leen terewuma leen ngeen di jëflante ak ñoom ci njëkk ak teraanga ak ngeen di maandu ak doxal ak njub ci lu ngeen seq laa yanhaakum allahu an allazina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wa inna allaha yuhibbul muqsitin ku jullit ne ko képp ku di jullit ne ko waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq te mooy nu sàmm ak yàlla ci mboole mbindeef yi ci di warmaa ñëpp ak moytoo jëme ci ñoom dara lu ñaaw njàngi lislaam njàngileem lislaam mii nag Cheikh mu Mountakha wax ne suñu maasee ànd jëfe ko dana nu dëkk dëkkin rafet jàmm rek mooy dox sunu diggante sëriñ bi wax na ne yéen njabootu yoonu murit nag ginnaaw bu ngeen tàbbee ci mboolem kàddu yu fàttali yi jiitu yëpp mi ngi ñëw ñu ngi ne ñëw ngir fàttali leen li ci jiitu muy ñëw ngir ber leen seen war bopp ci biir fàttali ak soññi bi nee na mi ngi dugal digal nu maase yasalaat suñu pësteef ak suñuy laxasaay ci lépp luy aar ak a sàmm yoon fi Sëñ Tuubaa bàyyi te jiitu ca mooy nuy moytu lépp lu mën a tilimal wala mu gàkkal derub yoon wi foofu waaye mën a nekk te na farlu baax ci jàmm yàlla mi tax yàlla suñu borom bindu ma te nu góorgóorlu bu baax ci liggéey Serigne Touba ci sunu doole ak suñuy alal ak suñuy xam-xam ba lépp lu mu nisoroon ba fàggul ko ba ñaan ko suñu borom ba may ko ñu góorgóorlu ca fexe ba loolu ñu gàttandu ko kon sëñ bi nee na ci biir loolu nag mi ngi sant bu baax taalibe Serigne Touba ci le xew bu yàggul ci mbiru loolu nag muy loo xam ne. naka jëkk ñoo xam ne njàmbaaru murid yi foofu nekk ndax ba Cheikhul Khadim di woote jumaa njaareem ja di ko liggéey pasif boobu lañ ci ginnaaw bu bi ñibbi seetu waaye itam képp ku fi ma sa nekkal ci Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawaay boobu la amoon ci bi muy fondement jumaa ji ak bi muy indiraay bi ginnaaw bi tam ak Cheikh Mouhamadou Fadil taxawaay boobu la amoon ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad taxawaay boobu la amoon ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadir taxawaay boobu la am biñ demee ba bàyyi ko fi itam nag suñ borom wane kiimaan bu gën a ndax bi Cheikh Mouhamadou Baara Cheikh Mouhamadou Lamine baar Mbacke accès ñu wan ñëpp ne mbirum Sëriñ Tuubaa mu ne kanam lay gën a jëm moom it taxawaay boobu la am ginnaawam itam ak Cheikh Seydou Mokhtar taxawaay boobu la am li ci mujj mooy liggéeyu Masaalikul Jinaan bi loolee Cheikh Mouhamadou Mountakha mi loolu la wanewaat ci liggéey bi muy bëgg a tàmbali muy université bi kon sëriñ bi ñu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa ni mu ko tàmbalee yàlla na sotti ci ay loxoom ba ubbi ko kon sëriñ bi nee mu ngi sant taalibe bi yëpp di leen gërëm bu baax a baax di yeesalaat nag ndigal li mu joxe woon ci daara Cheikhul Khadim jooju di ci sant kilifa yoon wi ci seen taxawaay ak jëf ju am solo ji nga xam ne. def nañ ko ci liggéey bi kenn ku ci ne def ci yitte def ci poste def ci taxawaay ba def ci loo xam ne def na la ma def lu mënut waaye nag sëriñ bi nee na nañ xam ne liggéey moom li fi àggut rek ndigal lu ndigal lu di jeex liggéey sëriñ Tuubaa du ñu wàcc mukk kon nag nee na mi ngi ci soññ tat yëpp ñëpp góorgóorlu waa ci xam ne kenn ku ci ne positif boo ci amoon daaw la nga yeesaat ko ginnaaw bu loolu jàllee itam nag mu ngi sant taalibe yi dëkk ci dëkk bi ak mboolem taalibe yi taalibe yi ci dëkk bi ci tere yi nga xam ne yàlla suñu borom da koo tere woon euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam andi ko Serigne Touba ñëw feddali ko moom mu ñëwaat ci jamono Cheikh Abdoul Ahad mu tere ko ci dëkk bi Cheikh Mamadou Mountakha ñëw yeesalaat ko mu ngi ci sant bi yëpp ndax yëg na ni ñëpp maase nañ ci xam ne seen njariñ la ñu jëfe ko kon mi ngi leen ñaar baax di suñ borom digal ci ku jëfe ndigal yàlla tàbbi ci yow kon nag ñu yeesalaat tere yooyu ci warma ji ñu war a jox dëkk bi nee nag lu jëm ci kàddu yu ñaaw ak pexe yu yoon yi nga xam ne ñu jublu Sëñ ak yoona bi ñu ngi koy yëkkati saa ne di ko jëme ci kilifa yi ak ci jëm yoone ngir bëgg yee na sëriñ bi mu ngi nuy digal ñu jëf ñuy jëflanteeg ak ñi def loolu ci anam ga Sëriñ Tuubaa doon jëflanteeg ak te loolu mooy bindu alxuraan bii di wala tastawi alxasanatu wala sayatu idfaa billati hiya ahsan fa ida lisi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa su xasin asim te loolu moo di nit def la lu ban wala mu wax la lu ñaaw nga fayonte moom ci def ko wala lu ñaaw yëmu la mukk nga bàyyi ko yàlla te ko koo topp yàlla su ban moo tax mu wax ne idfaa billati hiya ahsan te mooy ku la le ku la lebal lu ñaaw fay ku lu rafet waaye nag du lu yomb ndax ku yaatu ëpp dënnu doon ko mënu muy rek mooy am tawfiix jooju jëfe ko moo a suñ borom wax ne maa yulaqaaha illa llaziina sabaru maa yulaqaaha illa zu azrin aziim waaye ku ngeen gis mu mas am cër cër bu rëy ci lislaam def ndigal bokk na ci la ko bay te li ciy firnde rek borom barab bu tëdd bi di Cheikh Al Xadim firnde ci loolu ndax ginnaaw bu mu bàyyi ko ci tukki ci tukki ba ci nattu yu réyam yooyu ba mu agsee rek dafa daal di jël xalifa wax ne afawtu an il aadaai turan li wasiman nafaahum li xayri sarmadan lastu adduhu dafa wax ne jéggal naa samay noonu yëpp ba ñoo jeexal na kon ñu leeral tuuti ci ne Serigne Touba yeesale su suñu sukkandikoo ci wax ak bindu bo bindu borom xam-xam yu dund ak sëriñ bi ak ñu ko siyaare si ci jamono bàyyi ko ci mbooleem réewu arab yi daanu am lu wér ci ne ñoom ñëpp ñoo bokk nu ñu gisee Serigne Touba ak wàccuwaayam ñëpp mas nañu wax ne liggéey bu rëy bi Serigne bi liggéey yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi ak doomu aadama yi ci toolu lislaam bokk na ci kiimaan yi gën a màgg ci taarixu lislaam am na boroom xam-xam bu màgg ci réewu Misra ñu di ko wax ak Seexu Muhammad Xaalid Thabit wax na ci téereem bi mu tudde aqtaabul umma fil qarnil asiir wax na ne ñi gën a màgg ci kàngami lislaam ci qarnul asiir Serigne Touba bokk na ci ci diggante 1913 ak 1915 commandant de cercle bi nekkoon Diourbel doon saytu ak contrôle mbirum Serigne bi ñu di ko wax Antoine Leslie moo daan xotti sàkkiti njëriñ bi ngir bett Serigne bi ba xam ci lu mu nekk dafa bind rapport wax ne jëmm ju ñu wax si Ahmadou Bamba jëmm la joo xam ne mbootam kenn mënu koo xam te leer na ma yit ne yonent yi weesu ak awliya yi ñoom ñëpp jihaad nañu ci yoonu yàlla waaye biir na ma ne amuñu genn wàll doole ji yàlla jox Serigne Touba borom xam-xam ñëw doon dund yi doon ak Serigne Touba ci réew Mauritanie itam taalif nañ lu bari ci seen bi wax nañu ne mbirum Serigne Touba kenn mënu koo xam ndax bu ko kenn mënoon a xam ñun waa Mauritanie ñoo ko xam te mënuñ ko xam. añal war a fahmu ma li cheikhi law kaanu yufhamu maanaahu fahimnaahu awlaahu maa awlaahu min rutabin lillahi wallahi maa awlaahu mawlaahu ku ñu wax cheikh ku ñu wax cheikh ahmadul xasan yi nee ñu gis te ko wax ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo di ne cheikh bamba jëmm la ju yéeme wax na fa wilaaya awliya yu yeme yam la déparé xuus yoon wu kenn mësula jaar wutali boroom tonosub mboolem mbindee fi yàlla teg na ko ci loxoom zimaamul wara asidadallahi fi yadi wa ma rumtuhu min maliki qaada bil ani falaw kaana badal hachimiyi muhammadi nabiyun la xultu cheikha ahmada xaadima lahu saxara allahu alawalima kullaha ala rahmi anfi min xaribin wa ajnabi bi mu nekkee njaarim waa réewum iraq ak syrie ak makka ak madinatul munawara ak tunis ak aljazair ñoom ñëpp ñëw nañ siyaare si Serigne Touba ak Maroc ne ko Cheikh Ahmadou nu Baba Chérif maa ngi maa ngi jégalu kat ndax bi may dem dama fàtte sunu jàmbaar ja Cheikh Saliou Mbacké nga xam ne li ñuy wax taqdimul mutaaxir la ndax Serigne Touba dafa wane ci moom baax ndax dafa wax ne ci biir nooru daalen te ku ne xam na ak si dem woon maa maa salaami li yusaxihu al amal assaaliha allasi yukammilu amal Serigne Touba dafa wane woon ne dafa wane woon ne ci Serigne Serigne Saliou mooy tëj sama mbir kon ku ñu wax ak Cheikh Mamadou nu Baba Chérif ni mu ko nettalee ci ay waxam dafa ne min achaami jaatu lufuud wa makkata wa min taybata jaat wa jaatuhu min misra wa jaatuhu min faas aljadidi wa arbihi wa min tanjata jaa wa min sukkana ترى سكان ترى سكان مكة والعميم لأجل الشيخ تسكن بجانبه kon ñi dara gënu ko wut ci ay seere ku ñuy wax a Cheikh Mouhamadou al Kunti dafa wax ne Serigne Touba li tax nasaraan yi génn ko réew mi ngir sànke ko moo di dafa gaaral mboolem awli ak xutb yi wàccuwaay wu màgg woo xam ne kenn mënu koo am loolu ñu teg ko nattu yi gën a tiis ci mboolem nattu yi waaye kenn nanguwu koo tegoo ci ñoom ñëpp Serigne Touba rek moo jug taxaw jaayante ak boromam ngir teg ko natt yooyu nag yàlla doxoo jaarale ci loxo tubaab yi ngir ñu teg ko ko waaye dana dellusi ci réew ci réew bi ak maqaama yoo xam ne yàlla dana teg mosu mbindee fi ci loxoom loolu Cheikh Mahamadou Bachir indi na ko ci minal baaxal xadim moo tax Serigne Sary Bakke daa wax ne tubaab yi bu seen yéene selloon mboolem lu taalib yi am ci tuyaaba rek dañ ko am ndax mboolem lu Serigne Touba am rek ci seen loxo la jaar lii borom xam-xam yi wax ci wàccuwaayam ak wàccuwaay wu ñu ko jox sëriñ bi àdduna ci ci ay taalifam ci ay taalifam mu wax ne mbindeef mu yàlla sàkk mënu ko xam ku du rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ko doon mi mu doon liggéey ak yàlla sunu borom mi ko sàkk ci moom def ko muy kiimaan ci kiimaan yi moom yàlla mi nga xam ne moo wax ne wa yaxluqu ma la taalamuun loolu nag bu nga déggee Serigne Touba di ko wax mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis qultu wa xasdi tahaddusun bi ma lii qaadahu wala yurini niqama mu dellu waxaat ne yàlla sunu borom moo jël ci sañ def ko muy xar baax bu mu jëntal ci xabaax yi yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu liggéeyal ko mottali ci mbindeef yi yéen ci taxoon yàlla suñ borom bind ko baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixi baraya aaya raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdahi kulliyati mujisatun taaxarat wa xayru xayratin la dayka du xeerat sëriñ Tuuba aw doxalinam rek ci xeex bakkan ndax bi mu dikkee daa soobu yoonu ak tasawufu suluki te mooy tasawuf bi dëppoo ak jikko ak liggéey ak doxalin social jubli ci yeesalaat xam-xam tasawuf loolu moo tax li mu jëkk def moo di jub jubbantiwaat li ñenn nag ñoom doon doxee te mooy ñi tënku ci julli ak woor ak asaka ak aj màkka te bàyyi liggéey bàyyi jàng ak jàngale waaye Serigne Touba mu dikkee daa leeral ci njàngaleem ngir mu xam ne arkaanul islaam yi bokkul ak islaam ki ne kenoo yenoo tabax bi bokkul ak tabax bi ci boppam julli ak woor ak asaka ay keno la tabax bi mooy islaam mooy jëf ji ak kërkër ji ji lépp luy jagal àdduna bi dale ko ci ashhadu la ilaha illallah ba ci xettali ab soccet woloru wala bàyyi ma mu mar naan lisaan kon jëmb ak comportement ak jikko er ak yërmande irham uxayya jami xel xalqi kullihima wantur ilayhim bi ayni lutfi wa shafaqa fataku kasbin libdia tawakkuli maa iltifaafin fi ulu xumrin anjali gis bi nag moo war a Sëriñ Tuubaa yaatalaat doxaleen yu suuf yanke yi daa xeexe bakkan te ku ne xam na ne xeex bakkan te mooy jihaadu nafsi mooy fondement tasawuf ndax murit bi mënula am wusul fii xeexula bakkanam ba ko waaye méthode ba ñu daa xeex bakkan lu jiitu sëriñ bi weesuutoon génn bu baax ci ci bi ngir génn ko adduna bi boo dootu ma a gis bànneex waxuma daa di ko jëf mbaamu mu koy dund sëriñ bi nag bi mu dikkee daa gis daa gis na yoon wi gën a dëppook alxuraan ak sunna ci xeex bakkan moo di nga sëf ko adduna ak i tiisam ak i coonaam su ko defee tàggat ko ci mu yanu ko yar ko ci muñ coono diisaay bi doo ko dawale coono yi waaye day jànkoonteeg àdduna bi ba du tam bànneex huwa anshaakum min al ardi wastamarakum fiha yàlla dafa sant doomu adama mu taxaw temm ci tabax àdduna bi aar ko lu fi baax mu sàmm ko gën ko baxal lu jagul mu jagal ko ba dara du yàqu te loolu mu loolu du ma ko lu dul liggéey moo tax sëriñ bi bi yàlla nammee mu fekk ngir liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa bàyyi ba diine tumuranke lool jax lool mu doog koo feeñal ndax sallallahu alayhi wa sallam bi muy door ci tumuranke la doon bada al islaamu xariban wa sayuudu xariban fa tuuba lil xurba te de tey delluwaat ci tumuranke keefar yëkkati ko mbaax suufe seytaane jël tubaab bi roof leen ay pexem ngir yàq rekki gëm-gëm yi ni ko Sëriñ Tuubaa wax ci téeram bi ñuy wax ilhamu salaam fi zabbi an diini islam nga xam ne wane na fa bu baax fi adduna bi tolloon ci jamono yi muy feeñ ni yi yilife woon bi ak ni ñu doon yàq ak jikko yi ak ni ñu doon doxee diggante nit ñi ak seen borom wax ne wa baadu fal majuusu wa nasara saaru li ibliis al ghawi usara hatta gada ka annahum sukara wa ra'yuhum fi xatfihim qadara wa lil ana qaa'iduhum qad sara wa rafa'uhum ila nxifaadin sara yasawna fi leyli wa fi nahaari li jaalibin li xaribil ijabaari nee na jamono ji mu feeñe yéefar yi ak nasaaraan la iblis jël def leen jumtukaay yi ñu xeex diine moo tax mu jël leen def leen ay prisonniers ñu mel ne ñu màndi mbaa ñu tàggoog seen sago seen xalaat yëpp jëmewu jëmewu ñu ko futul pour leen di alak ak luy lor mbindeef yi iblis yi jël jël leen wommat leen jëmale ci leen lor moo tax civilisation bi nga tabax bépp ci mabbu rek la mujj wa warafahum ilaa xifaadin saara nee foo leen fekk muy guddi muy bëccëg du ñu dox cur luy sabab merum yàlla seen dund géppit dañu koy sànq ci luy mel luy mel luy merloo yàlla wala iyaasu billahi taala wajarahum iblisu lil isyaani wali tajarui wala xusaani iblis jël leen di leen xëcc waxtu ne jëme leen ci mooy ak fettirlu ak alkane ak pertaange tey ak ëllëg neen lu bi bi mu àdduna bépp topp leen ci mooy yàlla ak jikko ñaaw yi ñu fi andi wa taawaahum fi zina wa sarixa wa xeyri zeynin min fi alil fasaxa nee na am ñu leen jàppe ay yàlla mbaa ñu leen wàcce wàccuwaayu malaayika wa minhum min min an raa nasrani yasibhu min malaika rahmani wa baadahum qad nasiya aljalila li xawfihim wa nasiya rasula nee na am na ci ñoo xam ne dañoo fër jël seen mbir yëpp jébbal tubaab yi fàtte yàlla sàggane jaamu yàlla wa minhum man xarrahu nasara bi wasfihi xatta alfuadu xaara wa yunsibu sun allazi ajrahu fihim ilahu alxalqi ijdahahu lahum wa yactaqidu an alxawla wa quwatal fii fi'lilhum wa tuula lii la seetaane jële tubaab yi di fawe ak a jay ni ko sëriñ bi waxee moo tax mu jël mbooleem pas-pas ak xalaat yi yàq yëpp di leen ko sol ngir jàllale ko ci nit ñi wa inna shayaatina la yuuhuuna ilaa awliyaahim li yujaadilukum wa in ata'tumuuhum innakum la mushrikuun bokk na ci ngànnaayu seetaan yi gën a màgg yi mu doon yàq jamono li ñu naan liberté seetaan jël ko def ko ci xel seeni falaasifa ak borom xam-xam ñu ci xalaat ak ci ba jël ko mu féete kaw diine yëpp ak pas-pas yëpp ba àgg ci bëgg jël nit def ko palaasu yàlla Serigne Touba bi mu ñëwee dafa jël mboolem xalaat bi yëpp daaje sànni ci àll delloo nit ñi ci dëgg dëgg nature doomu aadama dama doon jaamu yàlla bu ñu delloo ci mbind sëriñ bi danañ gis muy leeral dëgg dëgg lii ba nee na wa xaqiqatul xurri man laa yaabudu dunia wala nafsa wala alhawa wala alayn fa huwa xiina isin sadruhu qubuuru al anwaari wal xikmati wal asraar wal barakaati wa xuyuuri dunya wal axira fa man danna annahu abdun huna fa huwa fa hunaalika xurun wa maalik wa maalikun wa aakilun wa maalikun wa aakilun wa man zanna annahu xurun huna fa huwa hunaalika abdun wa mamluukun wa maakuurun ñaanal liberté dëgg-dëgg mooy fexe ba moom sa bopp nee na doon nangu leneen lu dul yàlla yilif la adduna du la moom bakkan la moom bànneex du la moom saytaan du la moom nee na ku faxe ba ñeenti yi lenn moom la ci kon man ngaa jàpp ne ci dëgg-dëgg am nga liberté nee na maqaam boobu ku fa àgg yàlla day jël sa xol duy koo ci leer ba mu fees def ci xikam ak i mbóot ak barke ak njëriñ yu àdduna ak laaxee sëriñ sëriñ Tuubaa teg ci ne ku xam ne adduna bii danga fee war doon jaamu yàlla dañu laa war a yilif boo ëllëgee da nga gore am sa liberté di def loo neex boo ëllëgee yëpp dis ko jël xabaar ko ci buum jàll sànni ko sawar mu lekk ko wala yaasu billahi taala sëriñ bi waxaat na ci bindam leeral maanaam doonu doon jaamu bu yàlla ak moom sa bopp muy liberté nee na maa thamma illaa abdaani abdun yaalamu annahu abdun wa abdun yaqnu annahu xurrun ila axirihi nee ñaar ñi ñoo fi ne jaam bu xam boppam xam ne ak jaam rek la ak jaam bu bañ jàpp na daa am liberté mu ne ku jëkk ki nga xam ne daa xam boppam jàpp boppam jaamu yàlla bu bu nangoo tax mu nangoo jaamu boroomam di def fi ndigal di bàyyi tereem yooyu muy taxool mooy wuññi ay kiiraayam gi doxan diggante xolam ak àjjana ak ci melukaaram bu ko defee xetuk àjjana tàmbali koo xeeñ ak xéwalam te darul doxati diggante loolu ak xolom bu ko defee xolom da daal buur jëm ci ay eh, cërëmi sawar lool ci topp ko ci jàmm yàlla dootu tàyyeet mukk ca noona lay sax ba dee ñëw fekk ko ci xaal boobaa nag la nit ki mën a jàpp ne boppam dëgg-dëgg ku libar sañ def lu ko neex sañ am neex sañ a jëriñu ko neex ci àjjana mu ne ci des mooy jàpp ne moom moom boppam da libar ba lu ko neex def kooku bu ko xetuk àjjana di ëpp sax du ko yëg ngir bàkkaar yi muy def ak bànneex yi muy topp ñooy rey xolam ba du ko yëg boo koy xemeem naka noonu bu ko tàngoor sawre di uppit du ci yëg dara ngir bànneex ak bàkkaar yi mu noonu ñooy téye xolom du yëgate dara tàngoor ak xet yi ba di ko daw ci noonu lay nekke ba ba dee ñëw fekk ko muy nuur ci bàkkaar mu dekkee sawra ñëw ko moomu jaam ak alkane ñu sànni ko sawru mujj ko yes billahi taala loolu mooy li yàlla di wax ci wax yàlla di wax ci alxuraan ne innal abraar dafi naim wa innal fujjaar la fi jëm sëriñ bi nee na ñoo ñooy al fi naim wa innal fujjaar la jahim nee jaam yi nanguwul ak jaam ak jaam waxum yastarixoona fiiha moo tax sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa jël mbubbum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ashafii mooy تسجيل ما ثبت للمثفع أخنا يميني عن إذن ومدفع طلب mooy mbubum ramu ak xettile moo tax sallallahu alayhi wa jox ko mbóot ak saafara yi mën a saafara raggi jamonoom loolu moo tax bi mu ñëwee mënoon naa fetal jihaar jàmmaroog noonu yàlla yi waaye ngànnaaye sahir ku ko yëkkati loolu fexe ba am ko ci boo wéer ngànnaaye loola dellu si moo tax Sëriñ Tuubaa ngànnaaye tërbiya ak defar ruu yi ak xel yi ak xol yi la jaar ba taxawal li mu taxaw ba taxawal li mu taxawal moo tax mu wax ne sama liggéey bi ma doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ca noppee yàlla defal na ma yàlla fay fayal na ma boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fayal na ma boppam moo tax li ma bëggoon lépp ma am ko farrax bi kaw ni bila ak daari fii haasihi daari wa tilka daari dayfal karimi wal jamili wal wadud rabbil wara wa bi yukarrimul judud nee na yàlla xamal na ma ne li des ci may dund ci adduna ba àllaaxira gànnug yàlla laa laay doon yàlla nag li mu may tale mooy turamu yu waat yii di al karimu al jamilu al wadu rabbul wara te li mu may defal ñëpp a ci xaj ba ca maam ya nee na li ko yàlla fayee kenn du ci ëpp état bi yi aju ci moom moo tax mu wax ne allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa wajjih ila kulli man taallaq bi barakaati qawlika wa ma kaana allahu li yudiia imaanakum amin ya rabbal alamin yàlla sunu borom maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi di la nga defal mbooti ñu aju ci man barke ak mbooti laay jiidi wa ma kaana allahu li yudiia imaanakum yàlla ëpp na foofu seen yakaar yow yàlla mi nga xam ne yaa mën a may lépp ixfir bi jaahil Mustafa li kulli man ahabbani li wajhi maliki zaman nee maa ngi ñaan yàlla képp ku ma bëgg te yàlla tax yàlla jéggale say bakkaar naafiu bin fax kulla man adaqa yaa man hadaani bin nabi wa atlaqa nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ñëw fi man di yaakaar sutura sutura àdduna àllaaxira yàlla may la àjjana ji gën a kawe ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yantali bi mustafa alxuluba wali bukun tuwasil matluba yaa rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika alxasini wa chamla maa nee na yow yàlla maa ngi di ñaan sama taalibu yëpp nga boole leen ma den ci satatay yu say yi yàq mënula àgg maa ñaan nga boole seeni xol ba bu leen dara ma defee wala mali jamiihum nufuusuhum bila sa in yadru wal masaahi aqbala nee na maa ngi ñaan yàlla képp ko aju ci moom yàlla notoon la sa bakkan defar la ko ba mu jag tegu ci yoon te dara lu dara bañ laa jege ixfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi laa tusaxsih mara nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ma wutsi jëm ci man yalla jéggale say bakkaar say loxo yàlla saxal ci ay xéewal ak alal ju raw nafaatani fanfaa bi al iyaala yaa man xawal ay wal aqyaala nee na yow yàlla jëriñ nga ma maa ngi de ñaan ni nga ma nga jëriñu ko sama njaboot gi ak sama taalibe yow mi nga xam ne yow mi nga xam ne yamam buur yi ak kàngam yi allahumma salli wa wa barik ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wajhal qasidati haasihi xisnan xasinan lu kulli man taalaqa bi min annaasi ajmain kon ñu tëj ko fii ko Sëriñ Tuubaa tëje te mooy julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan xasida gi ñu ñu doon jàng mu doon tata ak kaaraange ci képp ku aju ci sëriñ bi ci àdduna ak kon mboolem ñu doon ñëw te seen bakkan décision itam tàbbi na ci biir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ah sëriñ xaali. Euh, jërëjëf Mbacke bi am na solo lool. am na solo am na solo ndax kat. ministre de l'intérieur Aliou Aliou Aliou Ndiaye. Bassir yëkkati yëkkati kàddu yi am solo. turu Cheikh Mouhamadou euh, Mountakha. ay kàddu yoo xamante ni nag te su ko daanaka du fi xaj. ndax euh, kilifa boo waxee ba noppi di ko xalaat sax daanaka mën naa nuru leneen waaye daal soññi ne taalibe yi kenn ku nekk nga respecté sa morom ndax amul kenn koo xamante ni boo xam ne bii loolu ne yàlla subhanahu wa taala moo soog suñu ngi ñaan fu waay mën a toll rek dëkkal sa loxo te ni amiin bi jaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bachir Khadim al xalifatul am bi taifatul muridiyya murid sadiq bi mooy ñaan ñaan gi nga xamante ni tëj màggal gi ba déwén incha allahu rabbil alamin yàlla na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha yàgg jiite yàgg koo woote yàgg ko euh, fekke bi jaahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aloona sëriñ bi wax na lu am solo kenn ku ne doon gi nga doon jullit doon gi nga doon tijaan doon gi nga doon jullit doon gi nga doon ak ku gëmul dara sax kenn ku sa croyance nan ko respecté wax na alquran li mu ci wax wa ma kaana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah fañ na ne yàlla la soog nga nekk foofu waaye na fi barab jàpp ne fu bu xam nga fii moom li tubaab di wax rendez-vous day daanaka xew-xew boo xam ne nii at ba at lay am